et rappeler et accorder à nouveau mon pardon à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora est dire mes prières pour un Sénégal prospère, pour un Sénégal juste,